xanaa lu ma yàlla dimbale rek président de la république président Macky Sall maa ngi lay gërëm ngërëm loo xam nag dëgg la ci man maa ngi lay sant ñaanu dëgg ñaanu dëgg nag day tege ci kaw ndimbal cant juddoo ca ñaan nga mat sëkk li yow foo jëm yàlla na nga fa fekk yiw yàlla nee yàlla na ko fekk tedd ngay sama borom ci barkeb salaatul fatiha barkeb alquran barke Cheikh na Tijaani yàlla na yàlla dimbali xool lay wax ak yow la fi nga jëlee réew mi. yow président fi nga jëlee réew mi. ak fi nga ko yóbbu. ak nga yóbbu réew mi. monde bépp teg seen bët. monde bépp teg sa xam-xam. sa xam-xam. ak jox nga yàlla gëddal. nee jox nga yàlla gëddal. ne président yaa baax. Hmm. président ne yow daal foo jëm yàlla na fa fekk yiwu yàlla fi nga jëlee këru diine yi ak li nga def ci teraanga ni mu toll ni mu baree kenn mënu koo lim amul benn doomu soxla bu nekk ci réew mi bëgg na nga dem mbaa ngay delloo réew ah mën na weddi nag dogalu yàlla. nee duñ weddi nag gëm nañu ko bu wér. yàlla noonu gëm nañu ko bu wér. nangu nañu ko bu wér. nangu nañu ay dogalam bu wér. ci yow ci yow. waaye yow. waaye président. foo jëm foo jëm daal. yàlla nga fekk yiwu yàlla. yàlla nga ko fekk yiwu yàlla. président yaa baax. président yàlla.